was his fault? Lagacho sana chuka njogo inafanyiko hango Aliusen jembaro jegwe kontre jaajëf ji maa ngi fekk Pape Sarr doomu Pikine Pape Sarr promoteur bi maa lay siyaare waaw dellu siyaar ci loo ne waaye sant Mourou Anta sant sama combat combat bi bëri coow Bou ak Malick Ndiaye fu coow li bëri na trop man dañ cee xaar est-ce bu neexee combat bu neex yow mooy sa combat. man sama combat la léegi dindi naa ko léegi Laurent la ak Boy Plateau. Plateau Laurent. booy Plateau Laurent. laa ci dugal la jóge lan moo tax nga taxawal combat boobu ba pare nag mu tuuse amateur yëpp. non ñoom ñoom xam nga tey boo yàggee ci làmb di xam combat yu jaadu combat yu neex yaa ngi may dégg sax man Malick Ndiaye 37 fu laa bëggoon ak Moustapha Gueye numéro 2 boobu laa bëggoon buusita Liss Ndiago far Liss Ndiago am combat bii. comprendre nga loolu laa bëggoon mais tey bi ñu toogee ma xool dem gisanteeg booy euh, booy bu tamit moomu ko gën a yombalal sax Malick Ndiaye bi ma dëkkal man Malick Ndiaye bi combat bi di taxaw si moom la gën a méttee mi moom mii ma dëkkal yaa ngi may dégg gis nga moo tax ma ne ko entraînel munoo booy bi dégg nga xam nga Malick laa dëkkal mais li tax ma may ma koy junj ci loolu booy bi daf ma koy yombalal bu Siteu waaw ma koy félicité si loolu. parce que tey Malick Ndiaye du mbër mu ndaw mbër mu mag la deuxième beneen combat bi mooy ëbbali bi ma dugal mooy ëbbali Pape Yékini ñoom ñoo mujjee dugg ak euh, booy dóor dóoraat bi déedéet euh, Médoune Khoule numéro de euh, dugal nañ ko mook Bosson numéro de dugal nañ ko lii daal combat amateur yi maa ngi ciy woo Pikine waa yëpp ak axlu làmb waa diaspora yi nag liñ ma wax nañ ko gaaw def parce que combat bi ñëw na. bëgg naa tey sama sama devoir yow mooy xale yi nga xamante ne tey amuñu billet di xaar combat bi taf ñuy ñuy këf affaire jaamur yeeg yooyu loolu laa bëgg dindi fii bëgg naa tey xale yi nekk fii amuñu njëgu billet ma defal leen rang ku nekk ma jox la billet nga dugg. waaw loolu laa bëgg. loolu am na solo retouru Balla gay 2 bi noo ko gisee ban état de forme en tant que sportif. non état bu doy waar ñoom ñaar ñëpp ñu ngi état waaw bombardier moom. munoo xam sax dañ koo jàpp si gàllaaj parce que su duggee si digg géew bi rek day fonctionné munoo ko xam comprendre nga Balla Gaye état bu mu indi moom la indi moom la liggéey comme contre Modou Lo liggéey na te léegi mu ngi ci ay loxo quoi mu ngi ci ay loxo ba Balla Gaye bii ak bu njëkk ba du benn liggéey na defaru na wax dëgg yàlla ma leen di ñaanal daal ñoom ñaar ñu bëre ko si jàmm que le meilleur gagne. yàgg nga yaakaar. non du yàgg. du yàgg non du yàgg. non du yàgg na ko respecté daal ku bëgg daan bombardier da nga koy respecté waaw da nga koy respecté. bombardier boo ko andi woon loo koy moytuloo ci Balla Gaye. ah. boo andi woon loo koy moytuloo. bu ko kubu Balla Gaye dal na ko jàpp parce que ñaari mbër la yoo xamante ne ku ci dóor rek sa ku ci ku ci jël ku sa làmb day yàqu soo xoolee Balla Gaye ñu ko tuuse yëpp dañ ko daan ñu ñu ko tuuse ñëpp dañ koo daan bombardier tamit boo ko laalee day ñëw maam ba yàq làmbam. waaw ñoom ñaar ñëpp maa ngi si maa ngi leen si moytuloo loolu ko ak ku ku si njëkk dóor sa moroom mun nga jël mun nga jël combat bi. waaw Balla Gaye bu njëkkee touché bombardier mun na gagné combat bi parce que day mbaam si ñëw bombardier tamit bu dóoree Balla Gaye Balla Gaye day mbër boo xamante ne xamul lu koy gaañ boo ko dóoree danaan damay fayu si fayu boobu muy def nag si nga koy pëtaxuloo daan ko combat yi mu am jafe-jafe yëpp ci loolu la surtout yu si yu mu bëri am ma seen yoo xam ne dama ànd ak sama mbër ñu ne ko tuuse ko boo ko dóoree day bëgg a fayu day ñëw bu ñëwee yow léegi na nga def li nga bëgg a def loolu la daal. ñoxal amateur le 25 juillet. ñëpp di woo Pikine di woo Sénégal di woo monde entier di leen invité yéen it euh, mobile 2 defe naa day def la 15 open press Pakola day def Marley mobile 2 ñoom ñëpp maa ngi ciy woo waa ne ko réel la bu siin ñoom ñëpp li feet la parce que Pikine dañoo jog pour fay ma. waaw Pikine dañoo war a ñëw jóg pour fay ma nag. waaw ñu fay ma da jaajëf kontaan naa ci yow bu baax di rafetlu sa liggéey di nuyu sa caméraman laga cosaan cuka njogoy na fañi ko xaango aliou